ñu ngi ci ñu jëm ci wàllu petit déj yi nga xam ne daanaka moo jëm ci ci 17 safar yi tey ñu waajaloon lu ci mel ne ay salé ak ay sucré salé yi ñu daanaka ay burger ay tacos ay croque monsieur yu ci mel ne tamit daanaka ñi nga xam ne daanaka ay pâtisserie la jëm ci wàllu sucré nga xam sëñ Massamba ñun daanaka moom moo ko waajaloon rek rek rek pour berndeel gan gan gan sëñ Tuubaa yi te ku ne xam ne moom màggal moom benn te lépp loo xam ne aajoo na ko rek nit yittewoo na ko rek li nga xam ci bis bi ñu waajal ko te mën a bàyyi waajal xel ñëpp moo waral daanaka variété yi ak diversité yi mën ci jëm ci wàllu xeewalu ndekki yooyu di santaan mbokk taalibe yëpp rek ak euh, ñi nga xam ne tamit waa Selcom daanaka lépp loo xam ne waañ wi liggéey nañ ko tamit ñoom ñu fësal ko wane ko ñoom tamit am ñu seen fay di sant waa daara yëpp ak gan yi nga xam te ñu ngi ci dal bi te loo xam ne lépp loo xam ne seen mbégte rek loo xam ne ci loolu lañuy dox ba képp koo xam ne bu ñu bee rek incha allah dana yàkkamtuwaat màggal ñëwaat incha allah waajal tamit añ yi ak lu mel ne reer yi lu ci jëm ci añi incha allah ñu ngi waajal lu ci mel ne ay ceebu jën yu xonq ak yu weex incha allah ci reer yi tamit comme màggal gi guddi lay tàmbali incha allah ku ne berne yi foofu lay tàmbali yu jëm ci ay miche yi ba jëmale jëmaale fanaane ko yendoon ko incha allah. asalaamaaleykum mbokk taalibe ñu ngi leen di saar bu baax di di di sant sëñ na Ousmane maanaam ñun moom euh, sunu sunu sunu sunu bëgg-bëgg ak li nga xam ne sunu yéene mooy bépp mbokk taalibe boo xam ne ñëw nga ci daara ji rek lépp loo rek. ñu nekk mu nekk à ta disposition loolu mooy suñu yéene taxit euh, ñu préparé yi mu jot a wax nii yoo xam ne waajal nañ ko euh, mooy sucré ak salé yi euh, nga xam ne màggal gi moom li may wax gars yi rek gëddu màggal sax deseen des na waaw lu luñ gën a def rek nañ ko gën a xeeb waaw xam ni sëñ sëriñ bi moom loolu rek la am yéene ci ñun mooy ñu ñu ñu ñu defal def ci suñu kéem kàttan ba def lu man ba lu manut waaw di di sant waa cuisine ak mbokk taalibe yi si si taxawaay beeg ndax doo xoolee ñun ñu koy liggéeyee nii benn benn liggéey bu bu bu collégial la boo xam ne ñu nag waa café commission yi nekk daar yëpp ñooy ànd nga xam ne mooy restauration di di di di di di defar lu lu lu am solo. loolu daal ñu ngi ciy sant waa Selcom ak taxawaay beeg lépp waaw di di tub bu baax ci ci ci kàddu yi daal sant nañ baax a baax nag.